monsieur le maire Bamba Fall mooy maire Médina te vision bi ma gis mu yor ko concentré ko si jeunesse bi. Hmm. tax mu créer vacance citoyenne bi nga xam ne moom la di nii ren. vacance citoyenne da ngeen fekk nag. vision vision vision bu am solo la. vous avez fait la vision bu solo la da ngeen def plagiat. non vision. non bokkul lii doon lii la nit doon def. ngeen ñëw di ko def noon non bokkul. non Medivac. bokkul na Medivac par exemple de Bouba. les concepts ne sont même pas. non non changé. Medivac Bouba il faut nga xam ni Bamba Fall bokk na si ñi ko doon dooleel financièrement. léegi mënul continuer wala ngeen. Seydou Gueye bi ngay wax bokk na si ñi ko doon dooleel. financièrement mais est-ce que impliqué ngeen ko bii yoon. non moo gën a large. bii vous vous avez impliqué Bouba bii moo bokkul. non Bouba non vous l'avez laissé. foog nga nangu benn affaire. Ah. ba jamono yu baax ba tey. vacances citoyennes activité yu demee noonu centre ay yooyu mën nañ ne compétence u maire yi la. depuis 2014 ba léegi yéen a ngi koy. moo ko moo ko def non non parce que am na ay santé ay yu ñu fi def yoo xam ne Bamba Fall moo ko doon def. Mhm. c'est pas la première fois. peut-être communication bi ci am ren daaw ci am mais ba Bamba Fall daan na organiser ay ay ay kii ay ay ay vacances citoyennes centre aéré yooyu yëpp daan na ko organiser ah à la minute man je suis témoin parce que lu ci bari penc santé ba lañ ko doon defee. lu ci bari dama ko daan fekkee même cours de vacances yi ñoo def ci école bi je passais je venais je dama daan gis dama daan gis peut-être bii la gars yi gën a communiquer léegi nag buuba moom wax naa ko dama koy waxaat fii buuba Bamba Fall ay xarit lañ Bamba gaañaanu buuba la buuba gaañaanu Bamba la donte mooy meeram nee naa ko fi nga daan jaar ba mu lay financer ngay def say activité mais jaaratal foofu mu jox la nga def sa activité du yàq dara ci activité wu mairie bi parce que ñun suñu bas moo gën a puissant te moo gën a large activité yi ñu prévoir dañoo bari te ñun booy bàyyi ñu leen noonu parce que on a recruté plus de deux cent cinquante étudiants yoo xam ne dañ recruté ñu nekk Médina dëkk fi maire bi mu leen di wax ñëw leen bindu pour liggéey ci vacances citoyennes yi ñoom ñëpp kenn xamul woon que ni sax di nga am dara di nga am lu looy percevoir ñoom ñu ñëw bindu bi ñu bindoo nekk deux cent deux cent cinquante huit ci deux cent cinquante huit yi dëkkuñu Médina mu yàlla def sax mu exact maire dindi leen jël 250 yi biñ ñëwee ba commencé waxtaan moom pour demander activité vacances yi mu ne leen bon comme ay étudiants ngeen comme ay élèves ngeen man dinaa leen rémunérer lu toll ci quatre vingt mille francs chaque mois pendant trois mois nga xam ne école su sax da di mën a dem gérer quoi nekk gën a nekk à pour débuter vos activités scolaires mais ça se dans la mairie ci mairie bi lay jógee su jógul ci mairie bi mooy génnee xaalis jox leen mais mairie bi mooy génne xaalis su génnewul mairie xaalis su génnewul ci mairie bi fan dama dégg mu ne dafa am ay partenaires cent millions yi ñu dégagé na ay ne partenaires yi ñoo lépp mën na nekk mais bu bu dee moom la c'est la même. donc les bu dee moom institut personnel c'est la même. mille francs yi nga wax nii c'est déjà voté par le conseil. je pense que dégg naa Cuba wax ko. non mais c'est déjà c'est yaa ngi direct de pense non moo tax ma pense. wóorul la non moo tax ma ne je pense. je hmm. naa Cuba wax que ni c'est voté par la mairie. Hmm. je sais pas mais bon mën naa dem laaj laaj gëstuwaat affaire mais je pense mais xam nga lan moo gën a am solo. du du xaalis bi ñu di jox mooy activité yi ñuy def. xam nga reboisement. mais xaalisu Médina am na solo. ñu xam fu xam nga xaalis bi fekkoon feneen lay jëm la problème am mais xaalis bi si waa Médina la jëmaat. d'accord te il faut le faire. parce que dëkk bi dafa dëgër les euh, mooy saxal garab. Mhm. dañuy def setal setal bi temps sax soo gisee moo gën a jël de l'ampleur parce que si période nawet lañ nekk. Mhm. dañuy def tournoi de football tournoi de football boo xamante dafay am Mm-hmm. catégorie mag yi ak école de football yi école de football yi seen tournoi de football yi commencé na dafay am tournoi basketball dañ koy def. Mm-hmm. tournoi basketball dañ koy def. comprendre nga euh, lan ak làmba dina am làmba tournoi wu làmba boo xamante ne compétition lay nekk euh, yaakaar naa Serigne Ndiaye bu Fass sax moom moo koy gérer waa tournoi wu làmb beex yooyu yëpp dafay am si activités yi ak cours de vacances yi boobu nag moo gën a am solo boobu cours de vacances su ma jumul le 15 août lay tàmbale. cours de vacances yi boobu moo ëpp solo. waaw gis naa ni gis nga gis nga pancarte yi boobu pour renforcer renforcer la capacité des jeunes. xam yooyu yëpp c'est très intéressant man boobu boobu moom si gën a yitteel sax. Hmm. te maire soo xoolee si éducation bi la gën a focus. tu sais tu sais Sidibé man oui tu sais Sidibé man la semaine dernière dama gis sam benn copain sam benn ancien collègue boo xam ne pur la nekk moom si Biral Tall la dëkk quoi on parlait du maire Bamba Fall ñuy waxtaan il s'appelle Diakhabi le ma di mais booy man sama lay jàngee. école Birame Sassoum mu ne ma mais bi école ubbee ba ma gis fourniture scolaire yi nga xam ne moom la ko monsieur le maire touché mu ne ma jabaram moo ko doon calculer mais bi mu ko calculer en valeur yegg na vingt sept mille francs sac beer kii bi livre yeex maire dafay maire Bamba Fall da doon def loolu lépp mais du si communiquer alors que boo amee affaire ak nit yoo xamante ne ils sont méchants dañoo soxor bëgg a yàqalaate Sénégal moo toll foofu foofu ngay communiquer ñàddalam soo ko mayee nit boo dugal benn bi communiquer la parce que soo ñu defoo ko. ndax yàqkat yi dañ puissant te li dal Macky laa koy bañ mu dalal ko monsieur le maire ba ma Fall. léegi looy def deel communiquer les gens di xam. léegi nga yow étant donné que yaa ngi ci communication. manipule les gens là. yaa ngi ci communication bi. man li ñu jaaxal mooy euh, ñun dañu gis ni euh, en tout cas la majeure partie yi fii comme yi nga jot a wax dafa am un un sérieux problème de communication entre euh, la municipalité et les population Eh, et puis il devait y avoir un lien entre les délégués de quartier et les populations et cetera jëm a jëm kaw ba ci ba ci conseils municipaux yi mais lu ñu gis mooy déjà la mairie dispose-t-elle euh, d'une page Facebook euh, oh, bon gis naa gis naa gis naa bi ma ñëw bi ma ñëw daal gis naa ay ay ay page Facebook yu bari ay page mais bon xam nga page Facebook yooyu noonu c'est des gens yoo xamante ne dañu am volonté bëgg jàppale maire bi ñëw ubbi page Facebook. mais page page page institutionnelle. institutionnelle officielle la xam nga maire bi war na dem sax ba am site. moom laay wax noonu. yooyu nag c'est des projets yoo xamante ne pourtant le maire mi ngeex moom te da ko war a réaliser te da koy réaliser. mais am na la amul. non non amul bu officiel amul bu officiel amul mais mooy li ma la wax rek da gis benn fans benn militant Bamba bu ñëw créer benn page Facebook. non loolu affaire mais bu officiel comme ni ko waa mairie Gueule Tapée Colobane amee gis naa leen waa mairie Plateau am nañ ko yooyu dafay war a am ci mairie bi pour man dañuy yegg si foofu dañuy yegg foofu dañuy yegg foofu mm. en fait le maire mm. communique problème bi muy am souvent moom mooy problème mu relais yi ñoom war a def transmission bi peut-être problème foofu la koy mais le maire il fait beaucoup d'actions ba ma fal nekk na maire boo xamante ne li ma gën a jaaxal ci moom li muy temps bi muy passé ci chantier yi moo ëpp temps bi muy passé ci bureau il tout le temps sur le terrain nit nit homme de terrain la ba pare dafa wàcc dafa modeste dafa simple man yooyu dafa nekk qualité yoo xam ne danga may attirer ci nit dafa modeste dafa simple dafa généreux Seydou il a ses qualités. a ses qualités. <laughs> yow kay continuer di sa sa sa démarche